plan architecture yi nga xamante ne moom la njëkkoon def yooyu la njëkk a commencé étudier étudier na ko étudier boo xamante ne ñi njëkk a xam projet bi bu ñu xoolee plan de masse bi par rapport ak plan de masse bi dafa xaw wuute parce que bi daf ko jël jël ko comme ni euh, sëñ Abdou Lahat euh, Mbacké prévoiroon euh, sëñ Baara ñëw taxawal ko léegi bu ngeen xoolee maquette bi dafa mel ne loxo boo xamante ne dañ ko taxawal nii def benn ronpoint ba pare def ay car ñu ñu dem bon bon léegi nag temps bu nga xamante ni moom la ñu prévoir sëñ Mountakha démb laaj nañ ko ci point ci presse ñu ni leen dañ leen dañuy xaar ba sëñ Mountakha joxe tey nag joxe na délai boo xamante ni ñu ko programme ci deux ans muy vingt quatre mois mais ci biir loolu étude euh, technique yi nga xamante ni ci la ñu nekk diggante les planning diggante les plans d'action diggante aussi l'organisation de chantier ak l'organigramme bi nga xamante ni moom la ñu war instaurer fii bu fekkente ni lépp mettre nañ ko en place ah, beneen matériel bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene indi mu egsi fii mais bu boobaa am nañu yaakaar ni dinañ ko liggéey lu yées délai bi nga xamante ni moom la programme programmé muy mois yi waaw. coût globalu chantier bi actuellement du ñu basé wu pour l' instant ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi wax ah muy les 37 milliards yi nga xamante ne moom la ñu programmé ah, actuellement. objectif u euh, Abdou Lahad Ka depuis démb depuis bërki démb bi ñu ñëwee ak léegi. ah yaakaar naa ni fii ngeen gis nii actuellement suma ma ginnaaw amu fi kenn koo xamante ni dëkk na feneen furul Touba ñi ñi fi taxaw ñi ñëpp te mën na mën nañoo seede parce que ñoom kenn ku nekk ak sa bàmmeel parce que ku jële Touba ay nit yóbbu leen ba jam ñaajo yaakaar naa ne bu ñu la joxee liggéeyu ta Touba la ngay njëkk def toog naa barki démb bi ñuy toog ñun di def ay étude technique kii dakaar la jóge man mi dakaar laa jóge mais man maa liggéey xabru sëñ Bassirou Mbacke Daaru Minam ak sëñ Muntaxa ba jël caabi yi jox ko en 2015 waaw loolu tax mu boole mag sëñ euh, Abdou Lahad Ka mais li ma la mën a xamal mooy que ni fii actuellement liñ naan nag a ah, sëñ Touba bu njëkk nit ñi dañ daan dem di jéggaani mais lañ daan jéggaani dañ daan jéggaani alal du ko indi mais tey jii li ñuy jéggaani du alal ah instant bi ñu toll nii nit ñay jóge ci biti ñëw di jéggaan si fii xam-xam dama la bëgg a xamal ni la xam-xam bi nga xamante ni moom ngay laajte xam-xam boobu dafay nekk tey it aussi ay doomu Touba amee ko jàng ko ci alxuraan jàng ko ci arab ba pare ñu néewal leen doole. loolu la xeex ba actuellement doomu Touba yi la fas yéene euh, liggéeyloo